halaan bikum waa cour d'appel fa ñoo dëggal xuuf paa mbuq yi métti yi nga xam ne moom la Basiru Jomaay Fay mbuqi gaañu ci wote yi si du quotidien moo ñu ko xamal info yéene kaay na ko résultat provisoire moom lañ joxe démb lañ ca mën a tënk nag mooy ne Basiru Jomaay Fay fa raw gaaña fa leen roppi lu baree bare séenuñ ko sax Habib Si Gàkku ak jonn ñoo xëccoo ndaaree yaw seetal Basiru Jomaay Fay cinquante-quatre virgule vingt-huit franc moom la xam yéen a kaay bi na xëw rëw lii fa bari ba jégg dayo la lim leen rawee xoto sax mënu koo daw xam nga ñaata la rawee Amadou Ba mi topp ci kawam 729 loolu mooy duma sa morom Amadou Ba moom la xam waaye moom itamit fa rawee lu bari ki topp ci kawam muy Ali Mamadou Dia pur moo jël troisième ak 2 virgule 80 pour cent Khalifa Sall 1 virgule 56 pour cent la am ay ndaw deltu ginnaaw pur sax moo raw Khalifa Sall bés bi yéen na Khalifa Sall Barthélemy moom it bësam mi ngi ñëw élection maire yi bu jotee faa ko nar a yërëm xam nga Barthélemy Dias fa doon wax naan ñiy wax naan Ousmane Sonko moo ma fal ci maire bu Ndakaaru du dëgg su wotee di ñëwee faa leen di woon sama doole Khalifa Sall na ñun ñooy borom Ndakaaru waaye xaw tuuti konoon jomaay rey leen seen bureau de vote ya sax jomaay fa leen faa mbuqi yor yor yéen kaay ne ndam lu rëy loolu nag jomaay fay am lu ji njaaga du kenn ku may Ousmane Sonko moo tax garde corps Ousmane Sonko yi fi mu toll ni remercier nañ leen maanaam garde tuñ Sonko waa GIGN takk deru état bu Sénégal ñoo leen remplacé libération ne ndamal jomaay fay li xamul benn werante moo jël P Amadou Ba 2 pur troisième Khalifa Sall quatrième ak un pour cent naka noonu idi topp ca ñi des na ay zéro virgule nangam pour cent bokk na ca Thierno Alassane Sall zéro la xam Boubacar Camara zéro Aly Ngouille Ndiaye zéro Pape Djibril Fall zéro Serigne Mboup zéro sifru Daouda Ndiaye Haydara Déthié Fall sifru Anta Babacar zéro Cheikh Tidiane Diallo Boun Abdallah Dionne Gakou Habib ñoom ndaara la xëccoo ku nekk naan maa ëppale sa morom ay soro virgule nangam pour cent donte moom ak Cheikh Tidiane Dièye fa ñoo waxoon seen i militant leen jomaay kon ñoom mën na leen a ci ndaara yi waaye Boun Abdallah Dionne Malick Gakou Serigne Mboup Pape Djibril Fall Mamadou Lamine Diallo ñii ñëpp xaw tut ñu rey leen ay soro lañ am ñoom ñii ñëpp nag seen trente millions yo caution ba perte ko kenn du leen ñoom xanaa watawuñu leen de les si ko yéen a kaay ne jomaay ak Amadou Ba fa ñoo xuuf pa 90 pour cent yi ñoo ko jël bàyyi gars yi 5 pour cent yi ñu xëccoo ko waaye Khalifa Sall moom ak Idrissa Seck ñoom ñoom pare nañ ci politique fa ñoo dee wet intaa seeboo ñu bàyyi ndax daanu yi ñu daanu fa jéggi dayo askan wi fañ leen a jàppe ne ñoom ñaar ñooñu fa ñoo war sénégalais yi El ci yéen a kaay bi ne ki gën a perte daanu ci élection yi dëgg-dëgg du kenn ku may Khalifa Sall xam nga fa wanoon gannaaw Ousmane Sonko dem ca dialogue ba ne leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja moo ne njiit réew Macky Sall fay jébbal jomaay fay lenge yi le 2 avril ndax juróom-ñaari attekat yi ña ngay accéléré yëf ya gaawal ko joxe résultat yi affaire bi jeex balaa la 2 si du quotidien na njiit réew Macky sax moom ma ngay bale xàllal yoon wi jomaay fay ngir le 2 mu mën koo jébbal lenge yi te mooy yéen na ko njiit réew Macky Sall kay fa tàggu sax ay ministre am bi muy amal conseil des ministres bu mujj fa a wax ne defar leen kayit yi ñu joxe lenge yi gërëm naa leen gërëm naa tamit na njiit réew Macky Sall félicité na Bassirou ci ndamam li ba pare wax gouvernement bi ne leen waajal leen kayit yi ngir ngeen jébbal leen ngay suñ nguur gi jeex na de kon nag nu golo xam bootee doomam man pare naa ci de enquête yéen a kaay dëggal ko ne ginnaaw bu mu tàggatoo ak ay ministre fa signé moom jiite réew mi décret bi nga xam ne mooy delloo si parti bii di Pastef xam nga fañ ko tasoon léegi tasarti nañ ko kenn dootul waxati ex Pastef parce bi yéen a kaay ne Amadou Mame Diop ma doon yaakaar deuxième tour lu le <laughs> ba yegg Macky Sall fa trahir waa APR yi fa leen a wor jàppale Sonko ak Jomaay contre Amadou Ba du samay kàddu nag Omar saw ministre conseiller bu njiiti réew Macky ci boppam moo tuumal loolu njiiti mi tribune yéen kaay yeggee ñu ko yaaw seetal fa wax ne ay jegeñaal njiiti réew mi fa ñoo saboté campagne Amadou Ba bi bi résultat yi génnee keroog fa ñoo jox Amadou Ba résultat yoo xam ne baaxul wan ko na ko deuxième tour fay am lépp ngir bëgg koo yokk gàcce rek fa caa yokk moom Omar Sow ministre conseiller ne Ousmane Sonko gisee na ak njiiti réew Macky Sall biñ ne suba la élection Fay Sall na ko na nga ñaanal Jomaay Fay mu gañe njiit réew mi ca këram fa la ko dalalee le quotidien yéen a kaay ne Amadou Ba fi mu toll ni mooy chefu opposition bi lan la war a def nag dëggal boppam ca APR jiite ko wala bokk mu génn APR taxawal parti boppam l'observateur na ko lu mat xalaata ngi noonu awaniiru ëllëgu Amadou Ba ci wàllu politique benn mu des APR rek wala mu jógee fa source ay yéen a kaay ne njiit réew bu bees bii Jomaay Fay fa nar ko doon dugal foo xam ne amul benn njëriñ ah, politique di ay milliards yu bari nee na du ko supprimer de waaye fa koy wàññi lool am na yenn institutions yi bànqaas yoo xam ne fañ faa dugal ay nit di leen fay weer te amalu njëriñ benn réew mi nee na fa koy dindi bu mel ni au conseil conseil économique ak ñoom seen su ko defee ay trente cinq milliards ak yeneen i milliards yoo xam ne fañ leen ko doon fay ñoom ñooñu ñu dugal ko ci jafe-jafe askan bi ba ci sax DG yi ak ay fonds jib ak fonds yu demee noonu fañ leen di wàññi dugalante leen enquête yéen a ko président Diomaye dund gi cher na trop te la ciy xaar naka noonu xëyu ndaw ñi ak wàllu dëkkuwaay lefe yéen a kaay na Bassirou Diomaye Faye bay dundee foofu la nar a jëm ak sénégalais yi Dakar Times yéen a kaay ne Baye Mbaye Niass al Kaolack yi responsable Pastef ca Medina Baye Kaolack fa feete anniversaire u Bassirou Diomaye bi boole ko ndam lu mag lim xam ay alquran nag la ñu jàng ca Medina Baye ñaanal ko yàlla jàmm ak suqaliku gi mu yéene ci réew mi fa koo defaral nag gato bu mag def ci photo Diomaye Sonko moom ma ngay nettali fa mu jaar ak Diomaye ak yaakaar bi sénégalais am ci moom yàlla bu yàlla tas yaakaar a kaay moom fa ñoo xamal loo xam koo teg loxo police la mujj faatu ñàkk bakkanam police yi ñu jaare fa tamit lakk ab bus taxal ko ba mu jeex tàkk yëf yaa nga amee ca Pikine libération ne ndaw loolu faatu mu Diop la tudd ay jege ñaalam fa ñoo tuumaal police ne lu ji njaaga mooy njaag l'observateur moom it di ñu xamal mbir mu yéeme yaaw seetal fa xam benn sàmm daal benn waay fa dóor nagam xam nga nu sàmm ba defam fa rey waaja rendi ba mu faatu ñàkk ba kanam allah te waa mu moromu sàmmkatam la de yëf yaa nga amee ca dëkk bu ñu wax njéemaan def ngeen lu kéemaan de xanaa rey sa nag sax jarul ngay rey nit ndax bakkanu nit moo gën a foor bakkanu nag waaye xam lu tax nga ko fa ngaa xam ne soo ko reyee kenn la rey rek